waaj a sifflé mbokk yi combat bi dox ci diggante Seck Ndanane oh. amaat armé combat bi yàgg na waay

Armé 2 Seck Ndanane laa ilaaha illallah Armé 2 door na sànq benn bi yàgg na nag ah, waay déet waay combat bi mu ngi bëgg waay combat bi mu ngi bëgg a yàgg arbitre bi àtt na lii yoon da a war a bëree Seck Ndanane Armé 2 lamb baaxu góor la ndeysaan bu doon sama yaay xaar mbay ba jaaga ba léegi nee na bàyyi leen seen laa ba jita laale laalay baaxu góor bu doon lambi jigéen sax jeex na aaye lamb bu ca góor nekkul jigéen na moom su ko defee mbër di gën a xabtalu mbër di gën a xabtalu cosaan yooyu lañ gëj a dégg ci làmb xam nga ne ku mel ni suñuy Adja Xaar Mbay ma jaaga suñu maam ku mel ni soxna Ndikku Cuun ah soxna soxna maam ma ah waay jaal Musa Aale oh, waay làmb waay ni ni ñuy changé waykat noonu la ñuy changé caméraman bu njëkk da nga dégg ay jinne caméraman yi waaye léegi loolu amatul léegi la bien jamais des caméramans moo am kenn du moom Mansour borom Leewtoo sama xarit bi waaye du waxee sama xel day def ci le cadreur lu mu cadré wul baaxul borom ñetti jabar yi Adama kenn du moom Adama nday bëgg na faama bëgg na rama Adama bëgg na ku xool bi moom moo raw car rapide moom Adama sama cameraman bi xolu basak loo basak day lal la ku bëgg a toog toog eey waay combat bi yàgg na waay Armé Seck ndaanaan temps bi jeex na ah wala déet dañuy joxe ndam mi temps am na Armé daan na Armé bi jox na Armé ndam